Gaston Production def na lu rëy ci altine ji ak face à face bu rëy muy face à face des VIP lu toll ci ay combat yoo xam ni war na am moom la daal di boole lépp tënk ko ci benn face to face ah, kon diggante Balla Gaye ak kii di Boy ñaar numéro 2 moo nekk combat phare bi te it moo tàngaloon bu baax a baax bii bii le face to face fële ca danielle Sorano le temple de la culture sénégalaise kon culture bi feeñ na waaye tamit ay garmi ay jàmbaar wane nañ seen bopp diggante Balla Gaye ak booy Niang numéro 2 waaye li ñu gën a jaaxal rek mooy kii di Boy Niang numéro 2 càppaacoli gi dafa ñëw wan ne doomu géejiwaay gi maa la ñeme maa la yàgg wut maa la yàgg wër maa la laaj te bés ba incha allahu rabbi di nga xam ne dinaa la daan bu neexee yàlla Balla Gaye numéro de ne ko da ngaa comprendre waaye Balla li ñu jaaxal ci moom mooy nemm nemm maaral bi nga xam ne nee na ko nemm daa mel ni ki rek lii bëy bi lekk bay cëppi-cëppi moom la kuy bi lekk ne nemm di ko xool waaye Balla ñu gis mu changé stratégie bu daan bëreek ay mbër si face à lu mel ni kii yax yóbbu yëkki nii Mohamed Ndao Tyson ak ñeneen ak ñeneen day dox ci seen kaw ci face à ba noppi jaxase leen wax leen lu ko neex neexal face à face bi waaye bi yoon gone càppaajol gi moo ñëw jël place su Balla Gaye Balla Gaye ne nem di ko seetaan lii dafa mel ni kii ab stratégie bu mu lan la fii ak la premier maanaam duma ci boole wax duma ci boole coow ba biir géew ma ma daal di wane sama bopp dafa mel ni ki Balla gay loolu la indi kon lool lay waa Pikine war nañ ko moytu bu baax a baax bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waaye càppaajol gi ni mu def noonu la jaay na combat bi wane na ne moo bëgg wane na ne moo ko ñeme te jour face à bi loolu yëpp daan na koy firndeel ñuy xaar le premier incha allahu rabbi li ñu ko a jaaxal Balla dafa dem moom mooy xale mooy wax ñaata minute lay maye booy Niang ne ko may naal une minute la Balla daan def jox na ko booy Niang kon boog booy ñaa yow yaa coupe face à face bi neex na kon bravo aux champions yi fa daje yëpp waaye itam mention spéciale Balla Gaye 2 booy ñaa waaye Balla gii nemmam gii mu ne nemm war naa jaaxal ñu bari te nee na woon góor dootuma yëpp te ci Boy Niang lay njëkkee le premier incha allahu rabbi arène nationale dana tàng